ñu ngaañu costume bi cravate bi. <laughs> présentation bi amul solo. Mhm. Cheikh Anta daawoon wax. defe naa am na benn conférence bu ñu ko mos bi mu ñëwee simis bi sol tubaab bi dafa jëkk posé question ko mais lu tax un temps comme Cheikh Anta ak nii lay dégg yëpp. Mhm. nga présenté wu nekk nii mu ni kër li nekk ci nit ba ñu koy tudde net nekkul ci yëre muy sol c'est extrêmement important. te ñun mais dafa wax humilité ci biir discours am. Mhm. gis naa ñu yëkk ci ay mbagg nekkul kuy yëkk ci ay mbagg gis na ñuy importance noonu bi ko jëlee def ko koo xam moom mooy candidat muy dem ci àll bi di campagne gis nga dafa sol ay yëre yu modeste dem campagne mais est-ce que n'est mais être candidat également n'est pas égal à être président de la République même si dugagul en fonction je l'ai dit à chaque fois il n'est pas président de la République et puis esthétique boobu nañ ko moytu mhm. mu ngi ñu yàqal lu bari ñaata yëre ñaata la ñu yàq ci ay yëre jigéen ñi fii solu et cetera liggéey yàq liggéey yàq liggéey yàq est-ce que moom bugul wane ni attention même boo nekkee ci haute fonction. Mhm. mais mën nga sol li kii di sol. yéen tubaab yi lu tax ñu gën ñu avancer ci côté boobu ah man damay gis ñuy sol benn jean sol ben kii Youssou Ndour en exemple également moi je le vois comme ça il y a des gens comme ça et ñooñu ay royuwaay yi mais boo bëggee ni il faut nga solo man gis naa ñuy wax parfois sax j'ai damay bëgg jël sama yére yi may sol di sol yeneen parce que même dañuy wax wéy jërëm wéy gis nañ la nga sol langam wéy dafa mel na xaalis baa ngi dugg mais lolu esprit boobu mënuñu ko defé ñu exemple ci président Rwanda bi euh, Kagame Paul Kagame mais c'est problème euh, euh, dafa am dafa am ñu nga xam véritablement dañu ancré dans les valeurs mm-hmm. am na lu nga xamni ni comme li Cheikh Anta wax loolu la ñu Maintenant, sur le plan du fond, du discours, c'est un discours responsable, c'est un discours fédérateur, c'est un discours engagé, mais c'est un discours d'espoir. Ça veut dire, il suscite l'espoir chez les individus. un, un écrivain, euh, historien, mais il était sceptique, mais il commence commencé dire « am Yakar, mm-hmm. bu vous ci comment parce que vous qu'il ay mots yu nga xam souligner. Mm-hmm.